ñëw personnellement euh, présider ko avec euh, ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk dans l'intercoalition bu sàmm sa kàddu parce que seen ak takku wàllu pour l'intérêt du Sénégal parce que tey jii ñi nga xamante ni ñoo fi nekk bu fekkee am nañ majorité Sénégal jafe-jafe yi mu nekk ak coono gi mu nekkee ak li nga xamante ni mooy yàq nañ ko réew mi ñàkk wax dëgg ñàkk sàmm seen kàddu bi jàpp naa ne loolu bu continuer ci réew mi réew mi ci guute la jëm damay profiter nag ci pour ñaawlu nga xam ne que ku ne xam na ne ñoom sos lañu ñu mën manipulation ak dëpp événement parce que ñoom ñoo ñëw fekk waa euh, takku wàllu di mobiliser wu nekk seen buntu permanence ñu fekk leen fa attaqué leen gaañ fa ay ndaw sàcc fa ay matériel musique sàcc fa ay jakarta xam nga loolu jàpp naa nit ku ko def te vidéo yaay mi ngi fi je pense que kooku ba pare xëy Euh, naan wala da ngay porter plainte wala dafa mais xale yi dañ leen a attaqué te bu ñu la attaqué naturellement da ngay quand même riposter c'est ce qui s'est passé et je pense que moom Ousmane Sonko tey jii tedd listu bu takk wallu Fanta Sall ak ki nga xam ne mooy Madiame ñoo ànd ak moom def nañ tey conférence de presse moom la ñuy porter plainte ak Pastef parce que jàpp naa ne moom ci boppam moom moo diriger ces opérations la et c'est un homme violent yàgg na ko wane parce que moom ba fi demee dàmpalu ji coow am ñu ñu ñu woo ko gis nga moom moo fexe ba xale yu bari faatu ci parce que moo fi woote woon Mortal Kombat ñoom ñoo fi toj ay Auchan ñoom ñoo fi toj ay kër jàmbur ñoom violence jàpp naa ne moom la ñu xam ñun nag on n'est pas violent mais je pense que boo ñu attaqué aussi naturellement dinañ riposter mais ministre de l'intérieur non xam nga wàllu 1000 milliards dootuma ci wax parce que parce que non dama ne xam nga Ousmane Sonko wax dëgg yàlla dama dama sonn sax ci wax mbiram parce que dafa mën a kàcc dafa mën a nar du wax dëgg affaire mille milliards comme ni ma la waxee yow yaa ngi dégg rek ñu ne lepp nañ trois cent onze milliards bu ñu gisoon mille milliards ci compte duñ ko jëli et mu ne benn nit boo boolee banque yëpp yàgg naa ko wax soo boolee seen i compte matul mille naa du nit daal comme moom dafa xaw a tawat dafa feebar jàpp naa ne fi mu toll nii def quête national pour faj ko moo gën. je voudrais d'abord euh, vous remercier de venir euh, euh, cette cérémonie euh, qui était consacrée au montage euh, des comités électoraux de zone. Et aujourd'hui, on le faisait pour le comité électoral de Alilo. Euh, Moi-même, j'ai présidé cette, euh, ce montage de comité électoral, ce qui montre que nous tous, on est à la base. Avant d'être un responsable euh, communal, un responsable national, il faudrait d'abord commencer par la base. Et aujourd'hui, moi, je vote dans ce quartier, je vote dans ce centre de vote à Lilo. Donc c'est important qu'on puisse venir, que les militants comprennent que nous tous, nous devons être des militants, nous devons être des responsables, nous devons être des personnes investies à la base. Et vous avez vu que c'est de manière consensuelle avec l'ensemble des parties prenantes de l'intercoalition Sam Sakadou euh, parce qu'il faut le dire, ici à Thiès, on est en intercoalition Sam Sakadou Takualu et on va euh, de Sam Sakadou, cest ce qui s'est passé aujourd'hui et ça s'est très bien passé parce que comme je vous l'ai dit, toutes les parties prenantes sont intégrées dans ce que nous faisons, ils sont représentés dans le bureau et je pense, comme je l'ai dit, le plus important c'est le travail sur le terrain et il faut privilégier la proximité. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour condamner euh, l'attaque quand même odieuse qui s'est produite euh, à Kungel parce que j'ai vu comme euh, ils ont l'habitude de faire la coalition Euh, dirigé par Ousmane Sonko, le PASTEF, euh, est dans la manipulation, mais c'est eux qui ont attaqué la coalition Takwalou au niveau de leur siège. Et naturellement, quand ils sont venus attaquer les jeunes, les jeunes ont riposté et vous avez vu qu'il y a eu quand même des dommages. Moi, personnellement, j'étais à Kungel, j'ai participé, j'ai assisté euh, aux jeunes. On a 11, plus de 11 blessés. Ils ont emporté euh, du matériel de musique, ils ont emporté de Jakarta, ils avaient des coupes-coupes, ils avaient des machettes et vous tous, vous avez vu les vidéos. Donc, ils sont dans la violence, ils sont aujourd'hui d'installer une terreur dans ce pays-là. Mais comme je vous l'ai dit, quand des jeunes sont attaqués, là, il faudrait quand même riposter, ça c'est normal. Mais nous devons, nous, prenons, nous demandons au ministre de l'Intérieur quand même euh, de prendre ses responsabilités. Parce que s'ils ne font pas attention, ils risquent d'avoir même des morts dans cette campagne électorale et ce serait regrettable. Il va, il va porter Mais vous savez, il va porter plainte. Ils dans la manipulation. Je vous dis, notre tête de liste, aujourd'hui, Fantasal va porter plainte contre Ousmane Sonko et le passif. Parce qu'il a été identifié lui-même qui conduisait la délégation et c'est lui-même qui conduisait ces opérations-là et c'est inacceptable.